Ok, comme je vous le disais, on est toujours au big Show de IS814. On est avec son frère Malal Mouinen. Final. naa leen. nan nga show bi tey. waaw show bi tight na nice na it's a big show show bu kawe la show bu ah, bu way soxla won la parce que Ismaïla doomu nan la doomu lahat la ah, doomu Laval la doomu quartier quartier Baye Matar Fall la waaw donc mu tek fi affaire bi c'est c'est comme ça. Bonne fierté ngay am boo xol mu petit frère qui xam ci yow remporté na ñaari trophée ci pop Galser mu doon lu content Ouais, trop hein, parce que di wax en fait c'est c'est du travail parce que c'est quelqu'un également qui mm. le mérite. parce qu'il travaille beaucoup. Mm. S'il continue à travailler encore beaucoup plus, il peut avoir beaucoup plus. Mm. Euh, donc Ismaël, c'est quelqu'un qui met l'accent sur le travail ku fonk donc plus que moi Fanko liguey dara mënuma ci mom tant que mu initiative mu donne une première pour Is mu ñëw songu est-ce que vous ngeen dit que c'était possible. ah mais oui bien sûr. bien sûr parce que toutes les conditions étaient réunies pour lolu parce que yaa ko wax il fait partie des meilleurs artistes. Mm. lyricalement musicalement et puis en même temps c'est un bon beatmaker. Mm. et puis ça bi ñu koy support donc. Euh, et eh, en tant que frère nga am frère artiste nan nga koy dimbalee ci li muy def. waaw di ko di ko wax sama xalaat di ko wax dëgg rek bu waree waa ci yoon nga wax ko dëgg. ok mais lan ngay gis tey ci nouvelle génération bi par rapport ak moom li muy def. waaw naay c'est une génération très intéressante qui fait des choses très intéressantes qu'il faut encourager. et yow sa projet lan la ci musique bi toll. waaw ñu ngi support di gunge boy yi ñu ngi ñu ngi continuer di. support non ñu ngi ci ñu ngi ci. sa projet bi waaw ah. album. yeah ñu ngi ci 2021. ñu ngi ci ci kanam rek. <laughs> nu muy tudd. ñu ngi ci ñu ngi ci rek. grave bu ñu laaxatu wax ñu rek ñu am exclusivité. non ñu ngi ci rek. <laughs> allez merci beaucoup.